jërëjëf Serigne Guirassy jërëjëf euh, cher leader yéen ñi toog fii ci podium bi jërëjëf suñu mbokki presse bi jërëjëf askanu Sénégal mi nga xam ne sama kàddu yi ci ñoom la jëm dama bëgg askanu senegal dégg bu baax li ñu koy wax dañu dootul nangu ñuy def ay confusion de genre ci suñu république mënatuñoo nangu ay problème mu APR ñu koy transférer ci république bi président Macky Sall su fekkente ni dafa am problème ak Amadou Ba nañu régler seen problème ci biir privé parce que APR association privée la la république nous appartient l'état nous du ñu nangu ñun askanu Sénégal ñuy jël seeni problème parce qu'ils ont mal choisi un candidat bëgg koo def un problème institutionnel il n'y a aucun problème institutionnel dans notre pays tout a fonctionné comme ni mu waroon a fonctionner mais ndax ren jii lañu ñu mës a recalé candidat xanaa fàttewu leen 2019 bii ñu jógee ñuy ba ñuy wax waxi rabat Khalifa Sall boobu dañ ko recalé est-ce que pour autant neewoon nañu ne dañuy reporter élection yi mënuñoo nangu lu mel noonu élection a date échue moo mës a am Sénégal depuis 1963 jusqu'à nos jours 1963 même su fekkonte ni benn candidat rek moo amoon élection amoon na 1968 élection amoon na 1973 élection amoon na 1978 élection amoon na 1983 élection amoon na 1988 élection amoon na 1993 élection amoon na 2000 élection amoon na 2007 élection amoon na 2012 ba ñu juumee ak tamit ju dañoo juum 2012 fal koo xam ne waruñu ko woon a fal élection amoon na 2013 2019 pardon élection amoon na il n'est pas normal que ñuy nangu depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui ñuy reporter élection parce que xam nañu qu'ils sont en très mauvaise posture sondage yi ñu def ñoom ñoo ko gën a xam au soir du 25 février dès le premier tour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera élu et le Sénégal connaîtra une nouvelle page dans son histoire loolu duñu ko nangu ni ko soxna Yacine Fall waxee léegi dañu ne président de la République ne nay day wax ak sénégalais yi suba suba à midi la ñu wax lu ñu mësul a gis tamit moom mu def ko su fekkente ni dafa jël décision bi nit ñi di xalaat ndaxte nag xel du jariñ lu dul xalaat su fekkente ni dafa bëgg a décision def coup d'état constitutionnel le peuple fera face le peuple sénégalais fera face parce que le peuple sénégalais a su a toujours su faire face amul benn grand rendez-vous bu peuple sénégalais mës a ci suñuy mbaam ba fii ñu toll nii peuple sénégalais dafa mës a taxaw dog buumu jaam yi président Macky Sall na delloo si xelam il nous a provoqué à plusieurs reprises bëgg indi problème ñu reporter élection topp ñu ko ci ndaxte kat ba muy jàpp Ousmane Sonko lool la ci doon wut. ak yeneen jéego yu mu yu mu taxawal pour provoquer peuple sénégalais yi peuple sénégalais ne ko ñun le 25 février rek la ñuy xaar le 25 février nag c'est un rendez-vous exceptionnel historique pour ñun bëgg bëre bëre ñàkk bëgg bëre bëre au soir du 25 février incha allah notre candidat sera élu dès le premier tour Sénégal xamaat beneen façon doxalin peuple sénégalais bi nag taxaw nañu temm ci ne bis bu leneen amee ñoom ñoo ko nar fajal seen bopp te loolu gëm naa ni dina am maa ngi leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf merci beaucoup Moustapha Sarré donc di continuer ak sunuy euh, intervenant jox kàddu gi léegi euh, honorable député Guy Marius Sagna <laughs> jërëjëf euh, président Guirassi